bon match Sénégal confiance rek confiance laa ko gisee bon parce que comme Sénégal première sortie bon perte na ko bon mun naa la deuxième sortie bi dafa mel ni comme finale la quoi. Mhm. parce que bon moom comme perte na Pays-Bas euh, nu mu koy Qatar aussi moom perte na première sortie mhm. bon rencontre boobu day doon rencontre bu métti quoi. Mhm. waaw du yomb du yomb. donc maanaam bu ñu la déggee nag du yomb nag mais Sénégal war na gagné. waaw waaw waaw moom lañ gis moom lañ gis victoire lañ gis ànd nañ confiance ne Sénégal mun na gagné quoi. waaw loolu moom incha allah loolu lay dem Sénégal na gagné bu neexee. est-ce que mën nga def benn pronostic ci par rapport score Sénégal ak euh, kii di Qatar. man de bon d'après sama point de vue. Mhm. gis naa 3-1 quoi. ah premier match ah wax dëgg fa yàlla perte nañ ko mais deuxième match nag mën nañ ko gagné si man moom. Mhm. ah man moom bu nekkee sama xalaat. suba classement bi dama bëgg nag. Mhm. si défense bi. nañu mayee foofu Kalilu Koulibaly. ak Diallo. Diallo waaw si latéral bi moom na def latéral boo xamante ne waaw comme mhm. gauchement la comme kan comme boy boobu mu tegoon waaw Jacob mhm. waaw lu si des digg bi si digg bi moom comme dab rek mhm. comme lu mu def premier mi-temps rek da ko bàyyi foofu ñun latéral bi rek la ñu amal affaire waaw na def ak latéral boo xamante ne latéral de métier la waaw mais boo xoolee tamit seen équipe Sénégal am ba léegi amuñu bi ah, amuñu attaquant parce que Sadio Mané nekku fa léegi nag si kaw kan moo war a nekk ci ci ci kaw kanam bi non instant yi ñu si man Bamba Dieng rek Mhm. mooy yaakaar bi Bamba Dieng mooy yaakaar waaw yaakaar nga ne Bamba Dieng bu joué rek mën na dugal waaw mën na dugal kay parce que moom nag yaakaar naa si moom hmm. si yoon xam nga yaakaar waaw day xee waaw moom si man moom moo gën Blaye Dia quoi ah ñun de luñ koy luñ koy xalaat mhm. yàlla ñu am ndam rek mhm. waaw bu ñu amee ndam rek baax na mhm. waaw te ma kontaan si lool te yaakaar naa ne dinañu am ndam waaw dafa métti woon waaye nag ay jàmbaar lañu góor góor suñ bu neexee yàlla yonente ba dinañu am ndam waaw suba mun nañu dugal ñett wala ñeent waaw wala ñett waaw mën nañu indaale ndam parce que premier defee la tamit contre keroog contre Hollande. Mhm. mën nañ si qualifier tamit parce que 3 points tam dabi ñu dara. Mhm. mën nañ si jëli équipe yëpp. man ngay xool parce que mën nañu génne 3 points si match mhm. 6 points ke ñi qualifié ñi àndandoon ñun ñëpp biir Sénégal tamit. dañu door ke ak Qatar ba dem jëli Équateur. score bu mun na gën a 2-0 wala 3-0 daal. 3-0 ah xanaa ñu yokk jom. ñu yokk jom am fula euh, euh, yokk seen pas-pas. luñ doon def démb ñi def ko ñaar tax ñu ndax équipe bu baax macha mhm. équipe bu baax bi nga nañu mhm. waaw mhm. koor bi <laughs> am 2-0 enseignement bu de ma part je suis satisfait parce que les gosses ont bien défendu par rapport ak équipe Pays-Bas bi équipe bu expérimenté bu pays 16 matchs sans défaite mu ñëw Sénégal tenir ko 80 minutes à la dernière minute ñu ñu jël deux buts bon man je n'ai rien à le reprocher parce que sous Inshallah on ça Inshallah on a beaucoup d'espoir pour demain. tu n'as rien à envier de cette équipe qui a perdu son premier match alors pour le, le match de suba ce sera un match décisif face au pays wala am nga yaakaar. waaw je suis toujours optimiste am naa bu baax a parce que les gosses moom franchement am naa ci ñoom yaakaar. ak Aliou Cissé bon on peut rectifier bu ñu changé tuuti rek ça va aller quoi parce que.

boo nous sous-estimer suñu adversaire adversaire doo ko sous-estimer et puis en plus pays organisateur là day am faveur yu bari ñun on devait venir serein comme nga dem comme suñu xam affaire de gaynde songu leen def tout pour rassurer la population quoi mais ñoom ñi ngi seen ginnaaw man j'ai tout l'espoir quoi incha allah suba par rapport ak premier match bi suba la gën a am suba j'ai beaucoup d'espoir franchement <laughs>